du Sénégal c'est aussi le président de l'Alliance pour la République mmh. c'est le coordinateur du mouvement présidentiel il faut aussi des fois euh, ñu politique parce que tey fu ma nee Macky sax jëlu woon décision sax def euh, du woon sa politique amu ci woon mais tey adversité bi ñoo ci dugal politique parce que li ñu ciy wax dafa bari mm-hmm. des nag mu tontu leen parce que keroog tontu na leen. Mm. te ba leen tontoo nag. Mm. politique mënoo ko ci génnee. Mm. mais quatre vingt quinze pour cent yi c' est purement économique. donc tey gis nañ fi mu jaar yëpp vraiment def fa ay résultats ci àll bi. ndax àll bi moo jaaxal gars te moom da ko ñeme. Mm. xam nga chaque jour. bu yaramam mm. bu noppalu ko ma ca àll ba. Mm. ba gars yi nekk fi di sànni xeer yi xam nga di saagaanteeg yooyu di wax wax yu bon. waaw saa saa la ko mag yi ci yaroom ci tegginam ci nangoo liggéeyam ci gëm àll ba dafa delluwaat àll ba ndax doomu àll ba la. dem dafa tur tourné àll ba. élection jotaat comme ni waxee naan bu élection jotaat ca ngoon. ba mbàcc mbàcc yi commencé. mu defar ko. xam nga te gëm naa ne bu lii tasul dynamique bi ñu continuer ci. xam nga nguur gi mën nañ ko téye ba 2035 ba yàgg ba yàgg lool ci nguur gi. ba 2035. non mën na romb foofu sax. ah kon xanaa kon da ngeen di jëmmal le troisième mandat bi kon. non ma troisième. oh non parce que parce que troisième mandat bi maître maître Babou nee na Macky Sall peut et bien avoir un mandat Landing Savané nee ku ku ñem ñemaat war nga wax mën a bàyyi parce que na sa mbëri ki nga xamante ni mooy dafa ne soo soosaat boo soo soosaat xanaa war ngaa mën a baax. wala boog wala boog day day jël day jël ki nga xamante ni mooy Amar Sène teg ko pour pour pour mu nekk candidat wu présidence 2024. waaw mais xam nga troisième mandat moom man sama position li ma ci wax sa jour rek. Mm-hmm. mooy discipline parti. Mm-hmm. ñu may ñu ko ku ciy wax tamit vraiment comme ni ko mag Sall waxee ci local yi rek. Mm-hmm. Euh, euh, waxloo wu local. mais ñun mouvement présidentiel bu ñu yor benn bu ñu yor. Mm-hmm. ak réalisation yi nga xam ne tey suñu ay ñoo ko def ci réew mi mën nañ continuer. mën ngeen continuer waaye waaye keneen keneen keneen mu daal benn benn bokk yaakaar mooy mooy parce que c'est le moom Macky Sall ci wóor mooy bennoo bi moom ci kattanu yàlla. Mm-hmm. tant que président mi ngi koy manager. Mm-hmm. ak vraiment euh, ouverture bi mu am. ak leadership bi mu am. Mm-hmm. mën nañoo continuer. Mm-hmm. téye nguur gi. Mm-hmm. ba ci kanam kanam parce que ñun la Sénégalais yi wóolu aussi. ah mais nag mais nag kii yaa ngi ñëw de. Ah? sëriñam baa ngi ñëw de Ablaye dafa nekk nii mi ngi mi ngi préparé wu de. Ah, waaw waaw le père. te te sëriñam bi macha allah. Ah, daa mel ni moo ko jàngal de te ko la jàngal ëpp lay kii de. waaw ne par rapport ak Ablaye Wade maam du moins dañ koy dañ koy dañ ñaan rek gudd fan ak. xam nga di ko di ko ñaan bu baax parce que tey. grace à lui moo tax ñu xam président Macky Sall. Mhm. te moom aussi ñun bu ñu bëggee bu ñu bëggee sax di wax waxi politique Ablaye Wade tax. Mhm. suñu Ablaye Wade kese lañ bëggoon ci àdduna. Mhm. ba tey moom lañ bëgg la personne Ablaye Wade dañ ko bëgg. xëy na def xam nga xëy na tey fin mandat am xam nga dafa am yu ci xew. moo tax ñu. ku nekk loolu doo dem ànd ak le président Macky Sall mais nit ku ñu naw la ñu bëgg la parce que dafa mës a xeexal démocratie nous la mm-hmm. jeunesse dañ ko mës a mm-hmm. man tey je rappelle en 2000 moom laa voté en 2007 moom laa voté donc mm-hmm. doon Abdoulaye Wade kon c' est quelqu'un que je respecte xam ne di ko ñaanal wax ne fi nekk nii kon c'est le plan Sénégal émergent bu 2035 euh, mën nañ jàpp ne day ànd ak Benno Bokk Yaakaar mais du wax ne day ànd ak Macky Sall mais day ànd ak Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ne moo ëmb. ñoom président Macky Sall ak ñi ci nekk Benno Benno Benno Benno mënul dem sans Benno mën a wax Benno sans Macky. Mhm. c'est Macky Benno. Mhm. Benno c'est Macky. Mhm. tu vois mais quel soit Alpha Macky. mi ci mi ngi ci biir mhm. xam nga li ñuy xam li muy def si di ëllëg nag li ñuy des di ëllëg ñoom ñoo xam mhm. mais ñun discipline parti mhm. may ñu pour ñuy exprimer wu ci troisième mandat kon donc damay respecter décision boobu campé euh, sama position mais dama en tout cas li mu liggéey li mu liggéey ci réew mi xam moom bu ta ku mu taxawal tey ci ci ci mouvement yow ku mu taxawal ci élection doo doy coow li nag bari na en tout kon mën nañu wax ne kon fi nekk nii moom mooy moom mooy non mais rom na B52. Macky est l'empereur de l'arène. Ah. mais loolu kay waxatu ko.